salaamaaleykum mbokk yi ci ndegalal Cheikh mahamoud muntaka khalifa general de mourid serigne Ahmadou Mokhtar khalifa Cheikh mahamoud Moussa ci njiital serigne Cheikh Mbacke Madina serigne abdourahman Mbacke khalifa serigne Cheikh waye ci ndigalal serigne Moussa Mbacke ci njiital serigne Ousmane Mbacke président section Touba jotaay bi bu ngeen ko gisee xamne amna lu bëgg xew moy lan baaxoo wote diko ñaanal julli di jitu yépp tàmbalee ci suñ maam adam ba julit bu mujj a ren ji ñu fasiyene ko amal fi ci Touba ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru décembre yamook bisub alhamis ci ndigal Serigne Ousmane mbacké mom Serigne Cheikh ak soxna nday Fatma mbacké ak soxna Fati khalilo ak Serigne Cheikh Diop Kelle ñi nga xam ñu jitt section Touba. way ñu koy defee nak ci ndigal fédération bi nga xam Serigne Moussa mbacké moko ko way ñu and ko bokk ñu ko baaxoo àndal muy daire islahu daire ni bu Serigne mbacké Madina. waa daayira Safinatu Amaan bu sëriñ Maxtaar Mbay Keere te sëriñ Ceerno Mbay teewal leen fi waa daayira mu faatiwul bisri teew nii ci njiital sëriñ Xaadim Sise ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ñëpp ñu ngi ci jataay bi waaye ñu ànd koog nag ñetti secrétariat yi waaye ñetti sous section yi nga xam ne ñoo yore organisation bi muy sous section wilaya jeune sëriñ Cheikh Diop Kellel jiite ko sous section adulte Serigne Mahamadan Mbacké jiite ko sous section wilaya de femme Soxna nday Mbacké jiite ko ñu ànd liggéey fas yéene ñaanal jullit yi jiitu ji ngir euh, li nga xam ne moo nu des ci àdduna mooy ñaan rek. bis mi programme yi ni lay tëddee danañ jox Serigne Thiaw Diop Kellel mu wax ci turu Serigne Ousmane mi jiite section bi bu noppee danañ jox Serigne Khadim mbaw mu wax ci turu daayiri yooyu nga xam ne ñoom lañ baaxoo àndal. bu noppee jox Serigne Mbacké Lo mi yore adulte yi su noppee soxna Ndey Fatma Mbacké ñaan. ñu dem ba benen yoon bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk julli yi ñu déglu té di sétan setaan ñu ngi leen di ñu di leen ziaré ndiko ko ibrahim kan waxe légui bu ngeen gisé jotaay bi da ngeen xamné jotaay buñu yagg la jotaay buñu yagg and ak yeen la te muy jataay woote loo xam ne dafa jëm ci jullit ñëpp may yëkkati sama kàddu nag ci turu sëñ Ousmane mi nga xam ne moo jiite section wilaya bu Touba. wilaya bu Touba nag di benn ci section yi nga xam ne ñoo composé fédération bi nga xam ne suñu Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ko taxawaloon ñoom ñoo am tawféexu di woote bis bi ñu di ko woote nag ci nañ ko daan wootee rek. li tax ñu di ko woote itam jàpp naa ne ñun ñëpp xam nañu ko la ca jiitu mooy jéem a jëmmal rek yërmaane ji nga xam ne sunu boroom am na ko ci mbindeef yi loolu ñu koy jéem a jëmmalaale ci bis bi. la ci topp itam mooy yërmaane yi nga xam ne itam borom Tuubaa ambal na ko mbindeef yi yàlla yëpp itam loolu itam ñu ngi koy jéem a jëmmalaale ci bis bi. waaye mbooloo mi itam ku nekk xam na ne dafa bokk ci ay jubluwaayam mooy benn ak dimbalante dimbalante bi nag dañoo jàpp ne ñii ñu àndaloon ci waar wi ci diine ji ci yoon wi ci daayira bi ñooñu dafay gàllu ci suñu kaw ñu war leen di fàttaliku di leen ñaanal loolu mooy ñoom seen mooy seen dimbal ci ñoom ndax ñi daw ji ji lu ñu leen dara lu may di leen ñaanal ak di leen fàttaliku loolu bokk na ci lii sabab ñuy taxawal jotaay bi bokk na ci itam mooy delloo njukkal mboolem jullit ñi nga xam ne ñoo nu jiitu ci diine ji du suñu borom di soññee ci alxuraanal karim ndax ñoom nekk gi ñu nekkoon ci diine ji moo waral ñun ñii tey ñu am tawféex yi nekk ci loola kon ñi ñu jiitu woon am na njukkal saa su nekk di leen dolloo ay ñaan waaye di leen fàttaliku itam loolu bokk na ci li tax ñu sos bis bi. bis bi itam bis la boo xam ne ren ji mooy fukkeelu fukkeelu édition ak ñeent ñi di ko def 2008 lañ ko tàmbiloon ba léegi sa jamono jooyu itam dañ ko tegoon rek ci ndigal boobu Alaaji Baara moo fi newoon yàlla na ko yàlla doole ay bañ fa démé wax ko itam la ci abégon loolu kontaan ci def ci ay ñaan wax ñi itam tawfeex ji ñu suñu borom defal non itam lañ ci amoon ndigal mboolem wa kër gi yépp itam kilifay kër gi naka non itam bi señ Sidi Moxtaar nek itam bañ fa démé itam taxaway bu mel non rek la ci amon waxoon ñu sax na yeen ngi def lu mata def ndax ñooñu ngeen ni fatlikou ak a ku fi bëgg a da leen di ñaanal kon dina ko ànd ak yéen Muntaxa mi nga xamne itam mo fi nek tay yalla nako yalla degeural te mom xam ngeen ne sax daana ñew ci bis bi du ko and ak nun bi yonwi. dogale itam mu nek ci bop yoon wi xeyna na jotam mayatu ko waye saa su nek de muñ fa demee danañu wax ne ñing koy and ak ci biir ñing koy and ak ci biti bis bi nak niñ koy defé moy ñaan rek ñaan nak di ponk bu am solo ci l'islam ñaan gi itam kenn ku nek sax mënoon na nek fam nek diko di def ay ñu japp ne fu mbolo dajé di defando lu bax moy gëna sakkan moy ëpp barké rawatina nak ci pak bu tedd bi di khulus lolou mo moo waral ñu wo ci julit ñepp rek ngir bu ñu yeggee ci bis bi ñu andalo xey jang alquran jang khasaid tuddu yalla jami yalla ya fa tew itam ñu berndeel len su ko defee bu ngone sëriñ bi genn ñaan yeewi mbolo mi soñu len ñu daldi di dem ba beneen yoon non rek lañuy magale bis bi bis bi nak ñi ngi ci tàllal loxo ñëpp rawatina julit ñi nga xamne ne lañ ko baaxoo andal ak fuñu mëna nek ci biir réew mi ak bitim réew rawatina daaree kaamil yi ak daaree alxuraan yi foofu itam moo fi tolloo faaw suñu xel dina dem si Abdourahmane Mbacké moom daaru Moussi te jóge fu bu yàggul ndax bii bisam bis bii bisam la woon dañu daan laaj sax di ñu soññ ana bis ba kañ lay ñëw daan ci def lim yu ama am solo ci njàng daan fi yebal délégation bu ama am solo kon bu ñu yeggee ci bis bi faaw suñu xel dana nekk ci moom ñu di ko ci fàttaliku incha allah di ko ci ñaanal. ñu ngi ci woo ñëpp itam rawatina nag section yi nga xam ne ñoo aju ci fédération bi ñoom ñëpp ñu ngi leen tàllal loxo di leen ci woo ci yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp di kuréel yi diine moo xam ay daayira lañ moo xam ay association lañ rawatina ñi nga xam ne baaxoo nañ ko ànd ak ñoom may soññ itam en tant que président comité directeur wilaya jeune bu Touba mboolem président daayira yi nga xam ne ñoo aju ci comité directeur bi ñu soññi seen mbooloo ci taxawaay yi ñu war a am ci bis bi ci fànn yëpp nag ak ca teewaay ba ñu xam ne bis bisum ñaan la du bisu folklore du bisu pugore du bisu super ndaje bis la bo xam dal dañ ci dajé rek di ñaanal way dawlu ji ñoo ñu ne ku leen di fatelu ak ñaanal warna am no mel kon ma ngi soñi ñep ci comportement yi ci melokan yi ci dal gi ci tewlu gi su ko defé yalla mëna dogal suñu ko defé non rek dañ ci am liñ bëgg te moy rek am ci ngërëmul suñu borom tabaraku taala ni nga xam itam non lañuy ñuy ko ñi nga xam dañoo dawlu ji noonu itam lañ baye xel ñi nga ñi nga xam ñi ngi ci hôpital yi tëdd ndax am na ñoo xam ne tey nga ci hôpital tëdd leen fa taxa a bokku na ci manki deret lolu nak mbolam mi bañ taxawé bis ba légui ñu gis na ñoy sa su bis bi ñëwee dañ leen bolé ci fàttaliku bi da moy ñu dimbalé ñi nga xamné itam ñi ngi ci hôpitaux yi teud te soxla deret ginaaw bu ñu ñaanalé wa dawla ji kon mayam deret mom nañ ko baxo def rek fi ci biir ke señ bi inshallah allah buñ ci yeggee dañ ko def képp ko xamné ni man nako bo boo dañ la sét bo mané mayee inshallah nga may ñi nga xamné ne ñoo nekk ci bërëb bi fajukaay yi te soxla deret kon daal lolu moy wote bi ñi ngi ci tàllal loxo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp di ñaan yàlla ñu fekk ko ak jàmm xam naa li ci des mbokk yi danañ ko mottali wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yaa ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa li rasuli ida daakum lima yuhyikum isi doa yanfau maytan fi xubuur wa yan xayya wa yujibul ujur asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy déglu wala mbokk yi ñuy seetaan wala fi ñi mën a nekk ñu ngi leen nuyu leen ziyaara baax leen balu àq leen baal di ñaan yàlla booluñ jégal ñu fa seen yëkkat suñu kaasu rek ci turu mboolem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ak li ko wër rawatina daayira yi nga xam ne dañoo ànd si ak waa wilaaya bis bu am solo bii nga xam ne ci la ñuy fàttaliku ak a ñaanal way dawlu yëpp mii bis boo xam ne kenn ku ne war nga koo leble ndax da ngay bëgg ñu fay la ko ñu ngi ciy tàllal loxo mbooleem daayira yëpp ñu ñëw ànd kook ñun nañ ko baaxoo ànd ci at yi jàll yëpp ndax bis bu am solo boo xam ne kenn ku ne war na ko bàyyi xel ñi ngi soññ mboolem daayira yi ak daara yeeg mboolem fu nit mën nekk ñu ànd ak ñun ci bis bi moo xam ci jëm yi la ñëw teew ci bis bi waaye itam ci ñaani yi ñaan nag nañ ko baaxoo saa bu ñu déggee bis bi rek wala boog buñ jàmbe buñ jàllee bis bi rek kenn ku ne tàmbali say ñaan nga xam bis bu ñëwee dañ ci xat mu ñaani rek tëj ko ca loolu nañ ko bëggee moo tax ñu soññu ñëpp ci fu waaye déggee bis bi rek mu tàmbali ay ñaanam lu mu ci mën ci lim mu def ko te fexe ñu jot lim bi bu ko defee ñuy soññee ci alxuraanu kari ak xasaayid yi ak basmala yeeg istixfaar yeeg ixlaas yeeg yëpp rek lu waaye mën ñu soññe leen baax baax ñu taxaw ci seen kem kàttan di xam ne bis la ba am solo boo xam ne kenn ku ne war na ko bàyyi xel ndax euh, li yéen ti boo xoon ne aljamaatu rahma da ciy feeñ rawatina ne ñi nga xam ne ñoo ko sof ñoom waa wilaaya yi ko sos bëgg ñëpp ànd soof ci ngir mu gën a jëm kanam te it ñu gën a yaakaaru ci bu mbooloo mi àndee dana tax suñu borom nangu ko te it boo xam ne bokk na ci sëñ Tuubaa wax ci Masaalik ne Euh, day dañ ciy nungu ñaan muy ñaanal mbokkum jullit fu mu newul nga ñaanal ko lu baax bokk na ci ñaan nga xam ne suñu borom du ko delloo kon ñu ngi ciy soññu ñëpp ñu teew ci te ànd ci ak pëstéef ni ko jëwriñ waxee kenn ko de bu ñëwee mu xam ne day leble te bëgg na ko fay mu bàyyi xel loolu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa ngi nuyoo di sant yàlla di tuubal sunu borom. Mm-hmm. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. waaye di jéggalu waale jullit yëpp nag mm-hmm. di am mbégte mu rëy mm-hmm. ci jataay bii ngir yu bari mm-hmm. ndax turu woote bi at bàyyil xadiim li taawuni wa tamasuk bi dinil xawleen jullit yu góor ak yu jigéen ni ko toogaay bi misaale ñu war a séddale lu jëm fa ab dundu jafe muy barzaq ñu di ko defee ci pencum Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma fii mu daan dëgg ay tànkam mu mel ne loolu képp ku ko fekke am nga taw feex loolu moo tax wirgo yu wuute yii fi daje kenn ku nekk mm-hmm. indaale na yéenay wet ga mu jóge loolu moo tax daayira mag ñi di adulte ñu ngi sant bu baax ndaw yi ak soxna yi mm-hmm. ndax ku gis jàmbaar da nga koy dolli ngir mu gën a jëmaat ca kanam mm-hmm. te ku yër silkul jawaahir xam ne tëraay ba foofa metti na ndax sëriñ Touba ma ko misaal xam na lu mu doon te la fa jafe moo di aw yiw te tëddaay ba yàgg na te am na ñoo xam ne bawunu ñu leen mën a defal lii kon mbooloom jullit mi am xelu fas yéene at mu jot ñu taxawal bis boo xam ne dañ koy tàmbali ñetti téeméeri fan ak juróom benn fukk ak nangam bisoo bis ñu di ko jàng ba mu egg ci benn bis ñu dajale mbooloo ya ngir jëmmal yéene ja mm-hmm. loolu bokk na ci liy mandargaal li Sëriñ Tuubaa wax irham jami wara kon ku am tawféexi bokk ca loola sunu borom dimbali na la loolu moo tax jataay bi li muy néew néew te am échantillon jataay bu nu gërëm la Serigne Cheikh mii woote woon ngir lépp luy jariñ jullit yi nu àndandoo di ko def te di ca dimbalante ku ko gis xam ne xolam sedd na waaye deretam a ngi fii ci biir jataay bi waaye këram gii mu nekk itam mu ngi dégg bu baax li ñuy wax kon bis bi dafa làmboo ñaar ñaanal ñi fi nekkut li ñuy dund ndax deret day lu jafe loo xam ne bala ngaa xam ne jafe na rek nga dem ci hôpital toog ñu war la koo jox te gisoo ko loolu moo tax képp ku ko man war nga bu dara xewut sax léeg lekk nga gendi ko waa hôpital kon nag bu nu boolee di dankal ña jiitu ji di leen yóot li nga xam ne du doy foofa waye boole ci di xalaat ñi nga xamne ne dañoo nekk ci hôpitaux yi loolu itam mandar gal na ne at bayil khadim rek motax ñuy wax ndax loolu kenn nit da cee néew di wax ne nak njàng mi bis bu ne la ku am alxuraan def ci ku am azkar def ci ku am salatu ala nabi def ci ba bis ba ñëpp andando teewando fi ñu jox ndo ko wa barsak yàlla nañ ko yàlla nangul bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخدمه سوير وتمكين السلام عليكم ورحمة الله مبكي نوغ لين دي نيو دي لين جارة di leen jaajëfal bu baax baax ni ko mbokk yi waxee rek xam naa bu ñu gisee jotaay bi sunu xel dem rek ci loolu alxuraan di wax ni di leen fàttali ndax fàttali am na njariñ kon fàttali gi mooy fàttali di ñaanal ñi nga xam ni dañ fee jógee waaye ñun ñu fi nekkee nag ñu fàttaliku xam ne dañ leen di fekki noonu ko mbokk yi waxee nag bis bi nag li ci ëpp solo dëgg dëgg dëgg dëgg mooy njàngum alxuraan mi ak xasida yi ak askar yi waaye ak bernde yi bernde yi day taxaw taxawaayub sarax ngir yéene yool bi ñi nga xam ne dafay jóge ni ko commission bi baaxoo defee at mu jot nag mu tànn ab ay xasida akub lim séddale ko mbooleem daayira section bi waaye nag di ko tasaare ci mbooleem jullit yëpp noonu la ko defa la ko defaat ren nga xam ne kon bépp daayira ba aju ci section bi sas na la juróom benn fukki kaamil ak juróom benn bu dee xasida yi nak at ma jot dafa am xasida yu ñuy tan donte nak wa yoy rek la waye yi lañ tan waye geneen xasida gu waay man wala lepp lu mu japp ni man na jariñ ab julit mu def ko ba ci ñëk moy mawahibu nafi'a ak wakaana haqqan ak sindidi ak jawatullah ak matlabu sifaa ak sakkuuru rafi'u ak tuhfatul mutadariin ak rabbi bi kon ren jii xasida yooyu lañ tan waye gën xasida gu waay mëna jangi nak nga jang ko waaye yéene yool bi rek ñaway ña ña nga xam ni ñoo jiitu bu ko defee nag noonu ñu ko waxee incha allah euh, ñi nga xam ne nag ñooy jiite njàng mi nga xam ne lépp lu ci waay jàng soo ci mën a jokkoo ak ñoom ci bi muy 76 597 69 wala 76 558 70 70 kon numéro yooyu lépp lu ci waay jàng soo ci jokkoo ñoom rek danañ ci jot boo ci mën a jokkoo ñoom it lépp loo jàng rek nga xam ne jubluwaay bi mooy yéene ko ñi nga xam ni ñoo jiitu kon loolu rek la bu ñu xëyee nag niñ ko xamee niñ ko baaxee rek ci mbaar mi dañuy yendoo jàng ba tisbaar waaye dañuy wéen jàng mi ba takkusaan incha allah ba ba sëñ bi ñëw di defal ñaan mbooloo mi kon ñoo ngi soñ ñëpp di leen san di leen gërëm di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu